asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram waaye nag laata loolee kuy gen ci page bi te abonné ko dañu lay ñaan nga abonné te bës de notification bi ngir kat loolee dina waral vidéo bu ñëw yaay doon ki koy njëkk a jot bu leen fàtte nag di commentaire di aimer loolee it dina dooleel bi waaye nag bu leen fàtte it di bës like bi mooy loxo bi ci wet ji loolee dina waral vidéo bi gën a tasaaroo ci site internet yi bu leen fàtte nag sunu li nga xamante ci ni moom moo di page yeneen yi am nañu TikTok Facebook yëpp am nañu ko fu ngeen bëggee information rek dañu ko jox kon nag gaaw leen wari ko ab journaliste bu dëkk ci Argentine moom nag moo doon xamle ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa UEFA ñi yor wàllum Ballon d'Or bi respecté wuñu Lionel Messi lan moo waral mu ne wu ñu Lionel Messi mu Messi bokk na ci meilleur joueur ci àddina bi jour de mondial bu ñu laaj ku ñu ko a laaj Lionel Messi ngay wax te boole wuñ ko bu nekk foofee ci biir Argentine di mbokkum Lionel Messi moo yëkkati yooyu kàddu maa ngi leen koy laaj ci commentaire loolee wala yéen lu ci seeni xalaat moom kile di Kylian Mbappé ak Neymar Senior problème bi dëgg la tey jii dëggal na nekk ca France waaye Neymar Junior

toogee seen avenir football mën na yàqu waaye nag loolee moo waral Mbappé moom xam ne moom bu deful nank rek dina daal di yàq ab carrière am ndax kat club yi ko bëggoon danañu ko bàyyi xam na ne Neymar yeewu ak kili di Lionel Messi loolee na ba tey ji xibaar yi Manchester United xam ngeen ne wala ba doon maxi ñii nga xamante ni ñoo di waa Brentford dañu leen a dóor lu nag métti woon lool kili di tan haka ba tey jii nag moom kële di Cristiano Ronaldo xibaar yi nekk foofee di biir Angleterre muy Daily Express Sport Star Sport Mirror Sport ñoom ñëpp dañuy wéy di ne maanaam ki nga xamante ci ne moom moo di Cristiano Ronaldo li nga xamante ci ne daal moo ko métti foofee ca biir Manchester United dafa mel ni day wéy dina ndax nekk ci club boo xamante ci ne demul Ligue des Champions nekkul ci deuxième place wala troisième wala quatrième waaye nag ni nga xamante ci moom ay réaction Ronaldo neexul benn yoon waa Manchester United waaye nag problème yi it ma ngay wéy di démarrer foofee ca biir Manchester United moom nag dafa mel ni la muy gënt moo di quitté foofee ca biir Manchester United waaye nag waa Manchester United mayuñ ko ko loolee nag dafa mel ni Eriksen Haak neexu ko waaye moom Cristiano Ronaldo daal maa ngay wéy di am lu ko metti foofee te biir Manchester United ba tey ji Rashford tey ji bu ñu sukkandikoo ci l'équipe dëggal na ne waa Paris saint ñoom nee nañu ñooy nga wàcc ab offre ngir bëgg ko yóbbu fa nga xamante ci ni moom moo di Manchester United lan nan lañu ci bëgg muy kii di Rashford nekk ca United ñu dal di koy jënd indi ko fi ca biir Paris Saint-Germain ndax ñoom nee nañu li ñu bëgg ci pari ba tey ji sotteegul maanaam attaquant yu ponkal yu man la ñuy def te ku xam Rashford xam ne amul temps de sa bu doy foofee ci biir Manchester United loole nag moo waral ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Manchester United bëgg ko daal di jaay te moom gone gi waxoon leen samay dossier wax leen ci lu leer naa ñi ngir ma mën a quitté ci club bi la di United wutali beneen club te nag waa dafa Paris Saint-Germain ñoo ngay bëgg a yëkkati xaalis bu bëri ngir yóbbu Angleterre wax ak Manchester United pour ñu mën a jënd club yi Marco Rashford loole nag dara ñu leen ko toppal te moom gone gi nag dafa mel ni dem ca Paris Saint-Germain du ko bañ ndax loolee kat dina bokk lool ci li koy gënal ndax kat li gën a wér te wóor moo de moom xam na ne club bi la di Manchester United temps de jeu ba na mu def amul yoon waaye seen club yi demuñu Ligue des Champions ba tey jii xibaar yi moom kii di Bernardo Silva ma ngay wéy di gën jege FC Barcelone lu waral moo di waa Barcelone ñoom wax nañu ne daanuñu jaay De Jong ak Aubameyang te bu nu ko jaayee seen place dinañu mën a gën a enregistrer kii di Bernardo Silva ca Liga Santander ba tey ca Ligue ba moom kii di Bernardo Silva kon nag Barcelone dafa mel ni li ñu bëggoon léegi tey rek ñu dal di am ndax Bernardo Silva moom it dafa mel ni club bi ku gën a gënal moom mooy Barcelone te waa Barcelone ne nee nañu nangu nañoo joxe li waa Manchester City di laaj te nag bu ñu jaayee Aubameyang ak kili di Frenkie de Jong rek lépp dina yemb ngir Bernardo Silva mën a rescindir foofu ca biir FC Barcelone te moom gone gi dàquli dem ca Barcelone te waa Barcelone ñoom xam nañu ne loolu dina gën ci moom loole nag waral ñi ngi baral jéego ya ngir wutiliwaat ca Manchester City offre bi nga xamante ne moom la ñu nar a yóbbu bu as bu demee foofu biir Manchester City ñoom duñu leen ko bañal kon nag Bernardo Silva wéy na jege Barcelone te moom loole dafa mel ni dàqu ko ndax it gënal na ko foofee ca FC Barcelone moom ki nag di Dey Tomas xam ni ñi a dugal muy ponkal moo xamante day dugal bi bari dañu ko loole nag moo waral ñu bëgg a wutali fële championnat bu Espagne ñu gën koo ci Liga Santander ba ngir waxtaan ak kii di Dey Tomas ba xam danañu ko andi foofee ci biir Manchester United kon nag Erik ten Hag la ma leen waxoon dafa mel ni ci la nekk de muy lijjanti ay attaquant Vivian Boll yu mën dugal tey di dugal bi yu bëree bëri gannaaw bi nga mu amee ku mel ne Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes ak kii di Rashford tey it ba tey jii li mu bëgg ca Manchester United mënu koo am waaye renforcer waan na it andi ay milieu de terrain ndax ku mel ne Christian Eriksen ku ko andi waaye it andi yeneen joueur ni Martinez ñoom ñëpp gisagoo ay résultats yu baax ca Manchester United moo ko jaaxal te moom xamul ba xam problème attaquant la am wala problème mu défenseur wala li nga xam ne dañu moo di problème de terrain kon nag De Thomas jege lool foofee ci biir United démb nag match bi bi mu doon dox Chelsea ak waa Tottenham xam ngeen ne match bu métti woon la match boobee naka ndam demul ndam dikkul ñi di waa Chelsea nag ñoo mane woon waaye nag ñi di waa Tottenham ñoom dañoo ñëw dal di égaliser match ba nekkoon 2-2 métti woon na lool nag ci kile di Chelsea ndax kat moom waa Tottenham sonal nañu ko waaye it waa Tottenham it Chelsea sonaloon na leen kon nag démb match boobee ku ko seetaanul mën nañu wax ne tardé nga ndax kat ñi di waa Chelsea jàppoon nañu Tottenham naroon leen a dem ne daal di leen dugal bi yu bëree bari waaye nag kile di Antonio Conte moom ak Thomas Tuchel xawoon nañoo laalante muy match bu jeexee da ngeen xool ñaari course yi di nuyoo waaye ñoom nañu nuyoon te moo leen wane métti woon na lool ba sax àddina bépp xawoon ca tiit ba tey jii journal yu bëri dañoo épinglé seen photo maanaam teg ko ca kaw xam ne ku dugg rek moom ngay gisa loola nag waral na ñu naan démb daal foofee ca biir Angleterre moom doon na jax ndax métti woon na ci kile di Thomas Tuchel ak Antonio Conte ndax ñoom ñaar mayante wuñu woon dara foofee ca biir club moom kile di Antonio Conte dañuy jóge nag ci kile di Thomas Tuchel doomu Sénégal bi muy Cheikh bama Bamba Dieng xam ngeen ne nag mbir yi ma ngay wéy di métti club bi mu nekk di Marseille kon nag doomu Sénégal bi daal li war sénégalais yëpp mooy ñu ñaanal ko dal di koy encourage pour mu dal di am club bu baax a baax ndax kat dafa mel ni club bu Marseille bi moom sunu xel dalatul benn yoon ci sunu gaynde gile di Bamba Dieng li wér te wóor moo di ñoom renforcé nañu attaquant ba andi Alexis Sanchez tama mag la du xale kon nag li nu war moo di ñu ànd doon benn jàppale kile di Bamba Dieng ñaanal ko mu am club ñi ne nag di waa Nice ñu ngi wéy nag di avance bu baax a baax ci dossier yi ki nga xamante ci ni moom moo di di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng waaye nag bu nu të benn yoon di ko ñaanal ngir mu am club bu baax a baax ngir bu kitee ca Marseille rek mën am club bu ko régionnaire moom ki la di Bamba Dieng am nañu ci moom yaakaar nag ndax attaquant buy dugal la te it club yu bari bëgg nañu ko ca Angleterre ak ca Allemagne dañuy jóge nag ci ki la di Bamba Dieng dal di wutali ki la di Aubameyang moom nag xam ngeen ñi la Chelsea dañu ko bëgg ndax Thomas Tuchel may tàggat Chelsea nee na attaquant buy dugal ko manqué te loola it dëgg la te moom doomu Barcelone di doomu Gabon ne ca championnat bu Espagne ca Liga Santander ba waa Barcelone dañu ko bëgg a jaay ngir mën a am ab défense waaye ngir mën am milieu ngir mën a am attaque waaye nag mbirum Bernardo Silva it gën a waral it ñu bëgg jaay moom a Frenkie de Jong sañu waa Chelsea it am ñaari gone muy Aubameyang ak kile di Frenkie de Jong waaye nag Max Tuchel it dàqul ba tey ji gën a renforcer waat club ba ndax moom nee na li ko yëkkati dëgg-dëgg mooy Ligue des Champions ak Chelsea bañ a am benn problème loole loolee dina leen jàppale bu baax a moom kile di Thomas Tuchel Aubameyang ma ngay wéy di gën a jege foofee ca biir Chelsea rawatina Premier League ba fa la jógee woon nag muy championnat bu Angleterre kon nag Aubameyang mi dàqulit delluwaat ca Angleterre kon nag Aubameyang mi daal waa Barcelone li ñu bëgg ci moom muy jaay ko nu na gën a gaawee ndax loolee nee nañu ñoom dana leen jàppale bu baax a baax dañuy ñëw nag ci kële di Rabiot xam ngeen ne waa Manchester United dañoo waxoon ne dañu ko bëgg te loolee Erik ten Hag moom nee fu ci woon ndax dafa bëgg waa Man United ñu gën a am bu baax ndax ni ñu ubbee Premier League bi di championnat bu Angleterre ñaari match yëpp dañu ci am ay défaite te moom noona loolee baaxul ci ñoom loolee nag moo waraloon mu ne dafa bëgg xool nu mu gën a renforcer club bi ngir kat ñi leen di waa Manchester United mën a jël li leen di championnat bu Angleterre te loolee xam ngeen ne yombul ndax ñoom sax Ligue des Champions sax fa fan la ñu wutali Europa lekk te ñoom na mel ne que nii ñu commencé bu nu ko dëkkalul du ñu demaat ca ba mën nañu a dem Europa League te it ci deuxième division ba man na leen a bañ a romb ñoom ñi leen di waa Manchester United moom ki leen nag di Erik ten Hag ba mu ñëwee léegi résultat yi mu fa am baaxul benn yoon moom ki leen di Erik ten Hag kon nag waa United ñoo ngi wéy di am ay problème moom ki leen nag di Rabiot moom kite ca Juventus dafa mel ni moo ko dal di gënal lu mu mën a am. kon nag dañuy ndar keppee xibaar yi ci kële di Aubameyang woy di gën a jege fa ci biir Chelsea woy it di gën a jege fa nga xamante ci mooy championnat bu Angleterre gannaaw ba mu nekkee ca Arsenal jóge woon fa dal di wutali Barcelone léegi nag ma ngay woy di gën a jege Barcelone ngir amit beneen club boo xamante ci ni dina gën waaye nag moom li ko gënal dëgg-dëgg moo di des ca Barcelone kon nag kële di Aubameyang waa Barcelone nar nañu ko dal di jaay taqaliku ak moom mu demaan ca Chelsea ci championnat Angleterre ca Premier League ba kon nag dañu leen di jox dig daje ba ci kanam tuuti ak beneen vidéo incha allah bu leen fàtte nag abonné te bés kolas de notification bi ngir di am ay xibaar yu wér te wóor te du ngeen te fay dara fii ci Le Monde Sport muy seen bi ëpp ay abone seen bi ñu bëgg mu ëpp ay abonné ci àddina bi ëpp ay like ëpp it ay commentaire groupe whatsapp bi nag 78 488 61 58 78 488 61 58 ngir ngeen participer ci groupe boobee